asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey talaata yemook juróom-ñetti fan ci weeru septembre atum 2020 ku fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram di guddi ñaar fukkeelu fan ci weeru muharram di guddi gi nga xam ne ci la seexul xadim dëkkaale woon ak boroomam Cheikh Abdoul Moustapha jëre woon ko ñaareem andi ko ci dëkk bu sell bii di Touba bis boobu nag ñu baaxoo di ko fàttali ko at mu nekk njabootu ko Daaru Xuduus euh, di amal euh, jotaay yu am am solo di ko waajal euh, di ngir fàttali ko bis boobu nga xam ne ci la Seexul Xadim dëkkaale woon ak boromam Cheikh Abdoul Mokhtar mi toog ab jotaayam di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ko wér eh, ànd ko mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Moustapha gi yëpp ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp mbokki taalibe yi eh, yëpp rek ñëw di ziare si ak di dundal bis bi nga xam ne mooy bis bi sëñ Tuba dëkkaloon ak boromam Cheikh Abdou Rahman mi fi nekkal Serigne Cheikh Abdou Mbacke Gaïndé Fatma moom it ànd ko mbooleem njabootu Serigne Cheikh gi gis ngeen taalibe di bàyyi ko fu nekk ñëw di amal ziar yi ak di nemmikonte ak di saafonte waaye fii ñu nekk nii di kër Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou di kër Serigne Aliou mi nga xam ne moom mooy doomi Cheikh Abdoul Moustapha ñoom it di ko dundal ànd koog mboolem njabootu ko Serigne Aliou gi yëpp ak xalifaam bi di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou gis ngeen ñëw amal ko ci njàngul Alxuraanul Karim xasaayid istixfaar salaatu ala bi ak bernde waaye xarit yi soppe yi ak wëlëre yi ku nekk ñëw rek di jaare si ak di saafonte ak di ndokkeel sëriñ bi ci bis bi nga xam ne bisu sëriñ Touba di bis bi ko gënal ci ay bisam waaye loolu lépp rek ñuy bàyyi xel ak di sàmmonteeg li nga xam ne que docteur digle na ko ndax màggal dafa dajeek li nga xam ne mooy jamono yi mbas lii di eh, coronavirus lëmbaaje réew mi waaye rawatina fii ci Sénégal loolu lépp taxoon ñu koy amal ci fànn yoo xam ne dëppoo na ak li nga xam ne moom la kër docteur digle fii di kër Serigne Mahmoudane Mbacke moom sax Abdoul Moustapha ñu gën koo xam ne Serigne daan xariloo ñoom di dundal bis bi ànd koog mboolem ñoom rek Serigne Mahmoudane fekk fi ab xalifaam di Serigne Khadim di ñaan mu yàgg fi lool te ànd koog wér noonu la koy dundalee ànd kook mboolem ñoom rek Serigne Mahmoudane gi. ci njàng alxuraanul karim xasida istixfaar salaatu ala nabi ak bernde euh, ñoom it noonu la ñu dundal bis bi taalibe yi xarit yi soppee wala rëy fu nekk tamit ñoo ngi ñëw di jaar si ki nga xam ne moo di sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Mahmoudan ñu gën ko xam ne sëriñ Dan xariloo ànd koog mboolem ay rakkam yëpp Euh, nekk ci wetam di dundal bés bi ñuy wéel yi noonu fii ci kër kenn ci njabootu Cheikh Abdoul Moustapha di euh, soxna Mariamu di taawu Cheikh Abdoul Moustapha moom it di jàmbaar euh, def lu am am solo ci yoon wi waaye rawatina ci daal Xuddus di ñaan suñu borom dolli ko ay leer waaye ñu fekk fi ab xalifaam di soxna Daba Fall nekkal ko fi di ñaan mu yàgg fi lool tànt ko wér moom it noonu la ko ànd ak mboolem njabootu ku soxna ma réemu di waaye ñu fekk fi kenn ci jëwriñ yi sëñ Ibrahima Sylla euh, xam naa dañ koy bàyyi mu yëkkatee kàddu jëm ci e, bis bi tey de Serigne Touba bis bi moo ko gënal ci ay bisam waaw te daanaka boo xoolee loolu mbooleem gaa yu baax yi dañ koy faral di ñaan naan yàlla yàlla na nga def bis bi gën ci samay bis di bis ba nga xamante ni ci laay dajeeg yow kon nag lépp loo xamante ni lu waay ju baax di ñaan la daa fekk Serigne Touba moom am ko ba noppi kon ci bis bii la sëñ Touba amee loolu mooy bis bi gënal sëñ Touba ci ay bisam ndax ci bis bii la daje ak boromam Serigne Moudou Moustapha nag woo mboolem njaboot gi ak taalibe yi ci dundal ko ak fàttaliku ko niñ koy dundale itam ak nañ koy ko mooy comme li yàlla santaane woon ci ay jaamu yàlla ak ay jëf yu rafet ñu yéesalaat ko ci bis bi. li yàlla bëggoon itam ci ku ko wéetal ak ku ko kennal itam ñu dëgërlaat ko ci bis bi kon loolu mooy màggal ci yoonu murit nekkut lu murit yi di def ngir sos ko wala ngir lenn dafay lislaam joo xamante ne nii tey alxuraan ak sunna daf ko saxal ba noppi nag ñoom nag ñu am jamono boo xamante ni léeg-léeg ba ñu fa àggee daal di yeesalaat loola luñ ca war na fàttale ñu fàttalewaat ko luñ ca waroon na dëgëral ñu dëgëlaat ko lu ca naroon a yàq wala mu am ay dëng-dëng ñu jubbantewaat ko ba mu tegu ci yoon wa nga xamante ne ni moom la cosaana woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul suñ borom kon loolu mooy waral màggal gi sëriñ Modou Moustapha daana wax ne bis bii moo gënal sëriñ Touba ci ay bisam waaye itam képp koo xamante ni fanaan nga fii ci Daaru Xudóos di ko màggale nii nga xamante ni lañ ko bëggee muy yeesalaat sa pas-pas ci yàlla yeesalaat sa wéetal yàlla yeesalaat sa jëf soññiwaat sa bopp jëfaat gën a góorgóorluwaat say jëf yu baax sa digganteeg sa borom nee na képp koo xam ne def nga loolu ci guddik tey gii seeraam araam na sawar soxna Mariyamu moom mooy koo xamante ni mooy taawub suñ mur Moustapha taaw boo xamante ni maanaam tey taaw bu ràññeeku la ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam maanaam tey boole na ko ak ay doomam soxna May daanaka boole woon na ko moom soxna May di bàjjanam mu nekk koo xamante ni daanaka maanaam tey ñaari kii rek lañ ñaari wattu rek lañ yoo xamante ni ñaari kook lañ yoo xamante ni dañoo seexoo ci melokaan ak ci jëf ju rafet ak ci makaarimal axlaax jikko ju tedd soxna Mariam itam nekk koo xamante ni yarkat la woon jaamukatu yàlla la woon jaamu kot lu yàlla la woon abid la woon daana yar ay góor daana yar ay jigéen ba ñu nekk ay kilifa jàngal leen alxuraan daana jàngale alxuraan di jàngale xam-xam ñim yar ñëpp itam ak ñi mu jur liñ ci gis ñëpp ay tànnif lañ waaw ñëpp ay tànnif lañ man mii di wax yow sama jur wu jigéen ci ñi mu yar la bokk waaye gis naa ci moom makaarimal axlaaq li may jur jur ay jikko yoo xamante ne ni xam naa ne xaaj na ay jikkoom la waaye soxna Mariam itam dolli na ko ay jikko kon ñi ko tuddee yëpp ak ñi ko joxoon mu yar leen ak ñi mu jur ñëpp defar na leen defar goo xamante ne ni mucc na ayib waaw soxna Mariam mooy taawub sëñ Mourou Moustapha ah mooy borom kër gi ay doomam moo doon soxna euh, soxna Njóoba Mbàkke ak soxna Ami Mbàkke ñuy waker kër sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Cheikh Mariam Ndiaye moom Daaru Ndiaye ak soxna Daba Fall mii fi des tey waaw ak njaboot gi yëpp ñoo xamante ni ñoo bokk ci kër gi ñii di ay jawriñ ci kër gi ñii di ay seex ñii di ay taalibe ñëpp daal ñu ngi soxna Daba di màggal bis bi ni nga xamante ni borom santaane woon da ngeen a fekk nii léegi ñu jàng alxuraan ba xatmu kaamil bi waaw lu ñu fa yendoo itam mooy jàng bu ñu dalloo def ay salaatu al nabi def ay ashkar def ay istixfar ak leneen lu baax luñ mën ci aw yiw def ko xaj na nag bernde lekk ak naan moom mënul ñàkk ndax yàlla ne kulloo wasra boobu ni mu diglee julli ak leneen li diglee lekk ak naan kon nag danañ fi lekk mais ay lekk yu dagan lañ fiy lekk lekk yu lew lañ fiy lekk lekk yoo xam ne ñoo koy fàggu wala ay taalibe fàggu ko ci seen tey ak bakkan ñu indi ko da fekk ne lu dagan lay doon kon loolu la ñuy jëfandikoo ci bis bi ak képp koo xamante ne xaj na ah, manqué woon nga koy ñu fexe ba nga am ko ngir ka doo am benn soxla bu dul jaamu yàlla. waaye mbokkee yi noonu la ñu wéyal yi ñëw fii di kër sëriñ Ahmadou Mbacke eh, ñu gën ko xam ne sëriñ Ahmad Tindodi di doomi Cheikh Abdoul Moustapha fekk fi xalifaam di sëriñ eh, Ahmad Aliou di sëriñ Ahmad Aliou nekkal fi bi ñaan mu yàgg fi loolu tànd rek mboolem njaboot gi ak taalibe yi. ci dundal bis bi ci alxuraanul karim xasaayit ah, ñu fekk fi ak kuréel bu yëkkati xasaayit ci njàng mu am am solo te neex lool ah, noonu lañ ko dundal tamit ci durus ak lépp loo xam ne daal day yokk aw yiwu ci bis bi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa dëkkaale woon ak boromam ñuy weel jaar yi di mbokk yi ñoo ngi noonu di jaare sëriñ bi di saafonte ak moom di nemmikonte ak moom Euh, muy bis bis bu am am solo ci yoonu murit waaye di bis bu am am solo ci njabootum Daaru Xuduus jërëjëf mbokk yi kon foofu lañ yem ak yéen jaar di leen jox dig daje ngeen topp ñu rek ci yeneen bund kër Cheikh Abdoul Moustapha diir bu magal gi lépp loo xam ne mi ngi xewee ak di bàyyi ko fii ci Daaru Xuduus ci bund kër Cheikh Abdoul Moustapha day leen ko digtal incha allah